tey jii suñu borom dogal nga nga perte match bi lan ñu mën waaw euh, kenn du xam nu ñu koy parce que élimination neexul on était venu franchement pour aller le plus loin possible et pour le même pour le trophée on a travaillé très dur pour en arriver là donc euh, malheureusement on va rentrer tranquillement chez nous mais les gosses n'ont pas démérité on a joué c'est le football on a perdu.

Euh, adversaire bi pratiquement pertoon na jeu il n'arrivait plus à se retrouver donc euh, c'est le haut niveau phase nationale c'est le haut niveau benn erreur de passe bu ndaw rek boo ko manqué rek ça te coûte très cher et c'est ce qui nous est arrivé on avait en face de nous une grande équipe de Neexle qui était concentrée tactiquement et voilà on a fait une mauvaise passe ñu intercepté ko et allez voilà et ça fait but. waaw di leen souhaiter di souhaiter Neexle vraiment une très bonne compétition. ils ont un magnifique public et franchement Mbacké bëggoon nañ fi yàgg le plus longtemps possible dëkk bi vraiment neex na on nous a bien accueillis mais c'est comme ça espérons peut-être la prochaine voilà di leen ñaanal vraiment une bonne suite pour les phases nationales que phase nationale jeex dans la sportivité comme ni mu commencé ni jeex dans la sportivité et que le meilleur gagne waaw violence moom wax dëgg fa neex yàlla ku gagné xam ni gagné na ku ñu ñàkk aussi également na encouragé ko gagné parce que football Sénégal loolu lañ ci bëgg mais pas violence pas leneen waaw lii moo gën a rafet ok jërëjëf gars yi allez merci beaucoup. Pape maa ngi lay nuyu. lay fay. Euh, nga amal match bu am solo suñu borom may la ci victoire lan ñu mën a wax ci match bi. Ah, merci beaucoup mon frère di nuyu sama xarit euh, di nuyu waa waa Mbacke yëpp di wax euh, match bi métti woon na parce ku ne xam ne physionomie ni ñu footballé parce que ñu am nañ pression moo amul pression. parce que ñun dañu doon joué parce que ñu am 6 points bari ñu ne ñun ñun ñu waaja suñu bopp préparé moom mu war a kut ko kut dafa war a gagné ku dee xam ne ne en premier mi-temps ñun dañoo subir mais dañoo subir mais dañoo am dañoo am défense baax dañoo am défense bu baax am ay joueurs yoo xam ne ay défenseurs lañ kon nag ñoom ñu défendre gérer seen bopp ba pare am maturité xale yu ndaw lañ kenn judduwu ci ba pare ñu am maturité mën a gérer ay mag une fois sur trois matchs dañoo subir mais malgré dañuy subir mais dañuy dañuy dugal ay bi yoo xam ne merci beaucoup waaw nga euh, gagné war a am équipe bi nga xamante ni na bokk nekk ci département loolu lan lay lan lay def ci yow ak nan nga war a duggee ci match boobu. waaw xam nga koy joué ci match amul kenn koy tëb wala koy moytu te ku ne xam na ne neex la moytuwul kenn moytuwul occas moytuwul keneen moytuwul keneen occas la am mais yàlla def na tey jii dañoo am dañoo am mbégte mooy dañoo am match gagné ko noppalu moo ñu war maanaam waaj moo ñu war préparé moo ñu war ku ne xam na ne foofu ñëwagul. mais ñu ngi suñu xel a ngi ci mais nag waxtaanu guñu jëmaguñu ci waaye nag ñu ne moom ñoo bokk dëkk bi te ku bëgg a gañ nit ku bëgg a gañ ku bëgg jël coupe di gañ ponkal su ma ko amee dinaa ko indi limaam su ma ko mënee gañ dama koy gañ. Cheikh Ndoye. capitaine neex la. Mhm. Euh, max bi ngeen dugg ci dugg ba am solo gagné ko lan nga ñu mën a wax man waxoon naa ko depuis le début quoi on va jouer match par match quoi parce que pour gagner phase nationale on va jouer match par match c'était un peu difficile nag mais on avait des hommes quoi. parce que phase nationale soo koy joué da ngaa ay joueurs xam ne dañu ay góor yàlla dëgg c' est vrai xam ne ils pas d' expérience c' est leur première phase nationale mais ils ont donné corps exemple pour gagner les victoires noonu la fa demee. Euh, ñu gis ne bi métti woon li ngeen doon perte bal yi bari trop ak équipe bi ngeen doon football mais ngeen seere loolu lépp ba dugal ko benn bi seere ko ba max bi jeex nan ngeen mën a travailler travailler bu on voulait juste assurer notre, euh, euh notre euh, position de leader. quoi. C'est pour cela qu'on a accepté de souffrir. On a beaucoup souffert, mais Alhamdulillah, on s'en sort avec les trois points. ngeen am ngeen war a am équipe boo xamante yéen a bokk département bi ngeen waroon ànd wuti bokk ay supporters parce que même si o Ocass ñu ngi leen doon supporter ndax département bi lool lu ngeen ci mënoon. non man moom dëgg yàlla match boobu noonu moo soo sañee sax moo ñu gën a aar ma sañoon mais alhamdulilah parce que dajeeg occasion tamit loolu dana yokk dara lii mais on va le jouer sur le fair play quoi que le euh, yàlla may ko ndam quoi.